asalaamaaleykum wa rahmatulah téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar ah, ak Equivox TV ak Babacar rek làmb rek du mën a ñàkk li ko waral nag tey la ñu tey ñu ngi vendredi vendredi 4 juin 2021 suba ñu jëm. samedi cinq juin 2021 fi nu jëm nag ci lamb lañ jëm lamb joo xam ne yaakaar naa ne lamb espoir la mais lamb ju mag la ki ko tëgg nag moom mooy Habib l'écran parce que tur woowu moom defe naa ne képp koy suivre lamb xam nga ko parce que li ko waral mooy l'écran dafa bokk ci sponsor leaderu lamb ji te moom moo leen daan représenté di ñëw di leen teewal moo tax turu Habib l'écran woowu moo ko topp moom nag mu dem ba ci biir mu dagg licence am ne day ñëw tëgg làmb gën a jàppale mbir yi tamit defe naa loolu lu am solo suba moon li ñu daan di faal mi ngeen xam bu Grand Yoff dëkk fii ak Dame seen borom paquet yi dëkk Parcelles Assainies muy lu nar a neex suba ñu seet si Habib ah di ko nuyu di ko ziar Habib maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw waaleykum salaam Babacar mon frère maa ngi lay ziar bu baax a baax di ziar waa Equivox ñëpp donc euh, ak ñi nga àndal ñoom ñëpp di ñaanal ki nga xamante ne mooy directeur bi di ko ñaanal jàmm yàlla yokk ko ba ngeen yëg ko. macha allah amin waaw euh, Habib suma la laajoon parce que nit ñi dañ naan dañuy gis Habib Habib Farhat Habib Farhat Habib naar la séréer la tukkulóor la joolaa la abib kan la waaw Habib euh, papam naar la yaayam séréer la mu ngi dëkk booru jas falaa màggee falaa amee fit falaa amee yar falaa jànge alxuraan falaa jàngee nasaraan ci laa soog a ñëw fii nag ci samay mbokk ki nga xamante ne mooy suma papa Eh, mun naa wax ne ci moom laa féete waaw. macha allah eh, dama la dégg sànq mu ngay ngay làkk pël da nga dégg pël. non séeréer laa doon làkk waaw saafen waaw séeréer saafen laa doon làkk uh-huh. waaw parce que eh, falaa yaroo falaa màgge donc voilà saafen yi samay mbokk lañu mun naa wax ne sama lépp falaa ko defee waaw kon nag abi bëgg naa nga nuyoo ci saafen waaw mii kañ mbokkacin saafiji mi woɗune ɓe équivox ɓe hayndi woti ngan bironi ngo pour ne ɓo waxtan ngan in in hande lambani kim le 5 juin digante nandi falna dam sen donc a hunni ka donc mi kañi saafiji jen e weɓane ini tax ɓiɓa hayndi nak weɗne pour ne ɓo waxtan ngan ini in hande lambani kim naar loma cimana waaw naar moom e, kiiwuma ci noonu fooroo ma ci noonu mais ñoom bu ñu waxee dinaa xam lu ñuy wax mënuñu ma jëw bokk mënuñu ma jëw waaw am na solo mais Habib lañ daan gis muy ñëw di teewal l'écran l'écran de si ay promoteur euh, ba ñu xëy tey gis Habib ñëw dagg licence pour nekk promoteur moom en personne Habib la moo ko tugal si loolu ndax waa l'écran ñoo la yónni wala yow yaay ñëw ci say propre moyens bopp pour nekk un promoteur waaw Babacar merci beaucoup ci réponse euh, question boobu euh, Habib képp ku ko xam mun naa wax ne ci làmba la ko xamee may sponsorisé comme ni nga ko waxee mais euh, nit boo yàggee ci dara rek dafay dafay mel ni virus moo la ci dugg donc làmba dugg ma ma gis ne làmba aussi war naa ci am place ndax ku xam Habib xam ne liggéey ko ñor ku xam Habib xam ne acteur de développement la ma gis ne làmb aussi mi ngi sooxe donc ma am potentiel euh, potentialité boo xamante ne tey jii wala euh, li nga xamante ne mooy sens boo xamante ne maa ngi liggéey ci benn produit boo xam ne sponsor lay def ci làmb ji mooy bi nga tudd léegi donc sponsorisation boobu mun naa wax ne mun na ma jàppale ci samay journée comme keneen aussi mun na ma jàppale ci samay journée mais label bi Habib Farhat production la du à l'écran du kenn mais man la man personnel man maa moom sama label mu tudd Habib Fahad production le golden boy de la lutte sénégalaise. macha allah sa relation tamit ak produit boobu nga xam ne moom moom la ñëpp xamee daan la ko dàkkentale lu luy relation bi loo fa yore comme euh, euh, ndombo tànk ci wàllum liggéey. waaw lépp luy communication man la lépp luy visibilité man la lépp loo xamante ne vente dans dans les sous-régions man la mun naa wax ne daal maay tànk may bopp ci libane ñoo nekk fii di ko conditionné mais produit bi français yi ñoo ko moom mais euh, ki ko moom libane la moom moo koy conditionné fii mu nekk koo xamante ni nit ku baax nit kuy jàppale askanu Sénégal nit kuy dugal loxoom ci li nga xamante ne mooy yëngu-yëngu Sénégal loolu la ma gën a neexee sax ndax bi Covid bi ñëwee eh, bi ma ko ko waxee tegu ci baat jàppale na waa Fann ci ay machines yoo xam ne dafay permettre nit ki muy gën a noyyi machine yu cher mais moom dafa nekk koo xamante ne aussi bëggul nit ñi di ko médiatiser comme muy def dara ni di ko wane. mooy li muy def fii au niveau de Sénégal yaakaaruma ne ñu bari ñu ngi fi bu ñu defee de dañ koy wane mais moom bu dul sponsor nga xamante ne moom dafa bëgg par exemple comme mu dugal xaalisam ci làmb yooyu mooy tax muy waneew mais am na cas yoo xam ne mu ngi ko fiy def ci daara yeeg ak euh, fi ñuy yore xale yi xale yi ndaw yeeg yooyu yëpp mu ngi leen di jàppale waaw tout bàyyiwul fenn moo tax maa ngi koy ñaanal yàlla daal action yooyu mu continuer ci ndax c'est normal parce que Sénégal ñoo ko jàppale parce que bi mu indee produit bi peut-être bi muy soog a dugg fi Sénégal bariwul woon ñu ko xam mais ak gëm-gëmu waa Sénégal ñu bëgg si lu baax moo tax peut-être mu yëg si fii ndax nit indi na fi lu baax nit ñi xooluñu ko moo tax ma ne nit booy def lu baax yàlla daf lay wóolu si loolu bu baax moom muy def ci euh, askanu Sénégal mu gëm ne man fii laa dëkk mu boole boppam ci Sénégal donc mu fiy def action yooyu daf ko war kon donc gàcce ngaa laa ma ñi nga xamante ne ñooy Sénégal ñu jàpp l'écran dañu xam ne moom mooy moo fi ne waaw. macha allah am na solo loolu moom leeral la parce que tamit xëy na mën na nekk lu mel ni pib waaye tamit dafay baax leen li ñu di ko leeral tey bi ngay dugg ci làmb dagg sa licence est-ce que sa ay kilifa yooyu nga xam ne ñoom ngay liggéeyal bi nga waxtaanee ak ñoom lu ñu la wax. waaw euh, parce que <clears throat> bi may dugg ci làmb waxtaan ak ñoom xamal leen ne man damay dugg ci làmb mais lépp luy sponsor maa ngi fi te loolu ma tax a jóg parce que sponsor promoteur bu ñëwoon ci samay loxo ngay jaar ma proposé suma patron mu yëkkati chèque may yëkkati chèque bi jox la nga dem retirer sa xaalis jour làmba yo jot Habib indi ay bâche indi ay meew yu muy maye indi t-shirt indi lépp ñëw jox nit ñi loolu moo ma waroon ci diggante man ak promoteur bi mais bi may dugg ci làmb dama ko xamal ne damay dugg ci làmb mu ne ma mbaa duggoo ci tu turu l'écran loolu la ma njëkk a laaj parce que euh, l'écran mënuñu am koo xamante ne dafay tëgg làmb ma ne ko non kii sama labelu bopp la parce que boo ñëwee fi nga ñëw nii sama bureau bopp la parce que dama dama am sama société à côté boo xamante ne maa ko moomal sama bopp mais dafa am ñu ma ko jox ñoom ñoo koy gérer mais làmba ji man maa ci dugg ak sama moyen bopp ba déwén bu ma naree tëgg bu fekkee ne l'écran amul sponsor mun naa ànd ak ñeneen mais lu ma ànd ak ànd ak ñeneen du ma ànd ak ku yor meew no parce que <laughs> man benn rek l'écran kese amul leneen mooy sama meew ak sama fromage amul leneen xam naa kon ñun bu nuy dem xanaa dañu war a weex tàll ak meew comme mooy sa meew ku fi ñëwit war ngeen koo jox meew ba mu bëgg euh, leneen li ma lay wax mooy maanaam Habib euh, si côté làmb ji bi nga ñëwee euh, lan moo tax nga choisir daam Sène ak ki nga xam ne moom mooy xale bi ñuy wax Ndandi Fall. waaw xam nga ñooñu dañu nekk mbër ñoo xamante ne peut-être gars yi des fois dañu leen di duñu leen bàyyee xel te man bu ma duggee ci làmb dama ànd ak père Babou maa ngi koy giare di ko nuyu de passage wax dëgg si yàlla. moom moo ma wax ne eh, Nandi Fall ak Dame moom ak mag sa Mbargane combat la ma ne ko nañu jël combat boobu ma dem ba ci biir aussi Abdoulahat maa ngi koy nuyu waaw maa ngi koy nuyu bu baax parce que man wax aussi lépp lu ma sekk ak nit rek man du ma mus wor doomu aadama bi ma àndee ak moom nag mu proposé ma Sococim ak ki nga xamante ne mooy Serigne Ndiaye ñu tëgg combat boobu ñoom ñu ngi ak sama avance combat boobu normalement dañoo waroon bëri la 5 bi diggante Sococim ak Serigne Ndiaye mais bi mu demee ba ci biir comme dafa taxawoon ci Covid bi euh, daaw combat amul ñu comprendre donc bi ñu ñëwee ñu jàppale cinq juin bi mu demee ba après ma informer leen euh, waa camp Serigne Ndiaye ci boppam non pas Serigne Ndiaye mais Sococim ñoom ñoo ne ñoom parewuñu pour bëre le 5 parce que dañu am combat le 6 waaw. muy gàmmu géey bon mu nekk loo xamante ne aussi man du ma yàkkamti samay mbir. te tant que maa ngi ci làmba ji te ñoom ñu ngi ak sama avance xëy na dinañ ko bëree mun na am ñu bëree ko ren wala ñu bëree ko déwén. mais ren bëgg nga ñu bëree ko. bëgg naa ñu bëree ko ren dama bëgg bu làmba ji jeexee incha allah ma programme date pour ñoom moo xam Iba Mar lay doon moo xam arène sénégalaise lay doon. mais régulariser goo combat Serigne ko Sococim. bon régularisation bi defaguma ko mais ñi nga xamante ne ñooy mooy Moustapha Guèye moo représenté woon Serigne Ndiaye Abdoulahat moo représenté woon Sococim. ñoom laa jox sama avance parce que ñoom ñoo ma ko proposé ñu dajee fële maris ma jox leen avance bi ñu yóbbul si mbër yi ku ci nekk xam ne lekk nañu xaalisu Habib te Habib dafa bokk ci làmb ji te dugg na ci làmb ji donc dañu ko war a bëreel waaw. ñoom ñaar lu mën a xew dinañ la par par A ou B. waaw fu ñu ko bëgg dinañ ko bëre. fu ñu ko bëgg rek ñu ànd fa. parce que demoon naa sax ba ma ne est-ce que du ma ko décentraliser parce que comme arène sénégalaise date yi dafa jeexoon. par la suite maa ngi eh, nuyu ministre de sports Matar Ba mu def fi action bu nice ñu ne dañuy ubbi eh, fi nga xamante ne mooy Ibamar donc jour bu ma mënte am rek ma tëgg ko pour ñoom tamit ñu mën a dem seeti keneen koo xamante ne xëy na dina leen tëggal waaw. Ndandi Fall Dame suba nga koy def combat boobu su ma si dikkee eh, après Ndandi Fall Dame loo toftal ci ginnaaw. waaw après Ndandi Fall Dame am na ki nga xamante ne mooy Ardo. Ardo ak Caatu Fora. ardo caatu fora ba ne ca ñoom max ba yànd ak sitta voilà abib la nga am na doomu saafeen ak badayaande waaw xam nga man waa foofu laa waa jas laa donc euh, ñooñu aussi dama leen sóoraale ci yëf yi parce que man seen doom laa donc voilà euh, programme bi daal bari ñett ñett foofu rek noonu nan fi taxaw badayaande moom nga wax dama koo xam-xam fu mu dëkk muy mbër boo xam ne macha allah am na ginnaaw trop doomu saafen itam noonu waaye combat bi nga xam ne nii moom suba ni na ko nit ñi bàyyi xel maa ngi leen koy wax mooy ardo ak ki nga xam ne nii mooy caatu fora combat bu doy waar a ngoogu waaw il paraît que combat bu doy waar a ngi noonu parce que maa ngi nuyu Mamadou aussi ki nga xamante ne moom Mamadou Diouf nit ku baax et alors kooku euh, combat yooyu moom ma ko taxawal parce que comme moom ci euh, stade bi waaw stade bi la bokk donc di coup euh, moom a taxawalal combat yooyu voilà. Mamady ma koy nuyu di ko ziar kooku mbaa xam nga ne sama mbokk la. Mamady Diouf nit ku baax nit ku baax vraiment. léegi ñu ngi déggante balaa ma yegg si fii. waaw mu ngi noonu sànq rek mi ngi woote dëgg la donc loolu daal mooy journée bu suba donc ma ciy woo Sénégal yëpp ñu xam ne seen doom seen frère bi nga xamante ne acteur de développement la moo jóg pour jàppale làmb pour bokk ci ñi nga xamante ne ñu ngi ci làmb pour bëgg a yegg aussi làmb xamante ne aussi. am naa ci njor te gëm naa ko man waaw. léegi su ma ñëwee ci côté euh, combat yi ñaata combat la suba. Euh, neuf combat la. parce que dix la woon. mais benn booy bi dafa def choc. dafa def choc donc finalement ñu mujj annulé te ci loolu pour ñu régulariser waat beneen combat. après dafa dafa xaw a am retard. waaw loolu moo moo tax mais neuf combat la. mais neuf combat yu neex aussi. yoo xamante ne aussi maa ngi ciy woo Sénégal yëpp. site internet yëpp télé yi yëpp man sama yëf moom ñëpp a ko bokk waaw léegi côté ticket yi ñaata la entrée bi waaw ticket yi maa ngi ko def euh, deux mille francs cinq mille francs ak dix mille francs waaw yomb na ci neuf combat ci combat bu neex non deux mille ko wàññi da ko wàññi nee na tur kee nga naan 3000 sa waaye nee na da nga koo wàññi 3000 la woon mais après dama ko dama ko def 2000 waaw pour yombal ko gars rek parce que am na bu ñoo xamante ne peut-être loolu dafay bari ci ñoom waaw ma def ma def 5000 ak 10 000 waaw waaw. ci côté ci côté animation lan lañ fa mën a xaar suba incha allah rabbi. waaw côté animation woo nañu euh, Pape Seck pour mu ñëw yëngal stade woo nañu aussi ñi nga xamante ne cosaanu sama yaay saafeen yi ñu indi seen yooyu seen gin gi bak yooyu ñu ñëw woo naa lébu gi. mooy ñu yore gaal gi rek di jooy ñooñu dañuy ñëw ci yëf yi woo naa euh, ki nga xamante ne mooy sama doomu ndey sama xarit sama nabu yaa Yadane moom nag waxoon naa ko mu woo képp ku mu xam na ñëw ci yëf yi ndax yëfu ñëpp la ndax bii mooy première fois Habib dugg ci làmb te di tàllal waa Sénégal loxo mu nekk loo xamante ne yàlla da koy fulandi ba faw waaw may profité di nuyu saafeen yëpp mais di ko jaarale ci koo xam ne doomu saafeen la waaye international la di suma xarit di suma rak sama frère Saliou Ciss international latéral gauche Sénégal dëkk ca Xolpa defe naa xam nga Xolpa de. bien sûr man foofu laa baaxoo foofu laa dëkk. ñooñu xam nga commune yu Diass moom ñoom ñëpp dañuy xamante. ay ñoom Gris Bordeaux ñu ngi jóge Ciki Père mbay Guèye mi ngi jóge Xolpa waaw ñu ñëpp ay séeréer saafeen lañu waaw. <laughs> léegi daal kon suba bu ma la bu ma ñëwee tamit ci côté sponsor à part fi nga bokk muy fi nga tudd léegi muy l'écran am nga yeneen sponsor yoo xam ne ñëw nañ jàppale si la ci bés bi. non non amul parce que peut-être xëy làmba ji je sais pas ndax dañ que am na ñu ma démarché mais ñoom dañ ma ne woon naa déglu ci ñoom ba léegi kiiwul mais yaakaar naa ne bu ñu gisee journée Habib suba képp ku Habib fëgg buntam ndax man samay mbir moom maa ngi koy wax tey te suba jotagul yàlla xam na ne man samay mbir yàlla moo koy sottil yàlla moo koy sottil te loolu dama ciy sant yàlla te lu ma dugg lu ne même lu dee dama koy caaxaane rek yàlla daf koy yokk daf koy ful ndax dama ko may waa Sénégal defal leen ko direct ba àdduna bi yëpp seetaan ko 2STV ah, waaw moo koy direct àdduna bi yëpp seetaan ko ku du amul billet boo ma ñaanee sax ma may la sa làmb jaa ngi bëgg a yomb di ma ne man maay Habib Sénégal laa fi nekkal di ndax ñoom ñoo ma taxawu fu sori yow daal ku yorul billet sax nga ne ko duggal. ma ne noonu laa koy jàppee ku ñëw sax bu fekkente ne te yàlla moo tax nga wax ne amuloo billet ma yëkkati billet may la nga dugg. léegi loolu leer na kon suba moom dig daje bi foofu lay nekk arène nationale léegi fi may mujjee ak yow est-ce que ñu ngi ab mën nañoo xar labelu Habib Farhat bi hmm, ci combat yu mag yi comme combat VIP de haut niveau yi. waaw xam nga ku tëgg ci début nga tëgg Serigne ak Sokocim. xam nga ne kooku dafa jóg pour liggéey te nee naa leen ah bu ñu fi yàlla bàyyee de ñu dégg ko ni ñu doon déggee ñu mag ña ci làmb man Habib rek man maa la ko wax Babacar ci kàttanu yàlla dinañ ma dégg fu ñuy déggee ñu mag ña te dinaa fi tëgg làmb boo xamante ne dama ko doon supporter ma tëgg làmbam mbër doon supporter mbër bu ma doon supporter ñaan naa yàlla bala muy décrocher ma tëgg làmbam moom <laughs> non non Babacar bàyyil noonu parce que ñëpp samay mbër lañu. tafaatin ñoom ñëpp. Lac de Guiers Tino Modou Lo Eumeu Sène ñëpp Balla Gaye ah. Bordeaux ñëpp samay nit lañu. waaw Gris sa mbokk mi comme yéen a dëkk. Euh, Gris waaw Gris maa ngi koy nuyu de passage sama suñu mbokk la mais awma ak moom contact mais xam naa ko bu baax te chaque fois dama koy ñaanal jàmm mais euh, am naa relation ak. koo xamante ne wax dëgg si yàlla nit ku baax la e, xëy na sax waruma ko wax mais daal ci gàttal daal ñëpp samay nit la ñu. ñëpp samay nit la ñu parce que bëre bu fi nit bëre rek Habib dugal na fa xaalisam ci sponsor e, foofu à travers loolu la ñuy xamante waaw. Habib kontaan naa si yow. ah Babacar man maa la gën a kontaan yow mi déplacé wax dëgg si yàlla nga ñëw ba fii ah tiimale ma sa micro ak caméra bi pour àddina bi yëpp seetaan ma donc man maa lay ñaanal jàmm ñaanal ndam. Eh, di wax ne Babacar eh, jàpp naa leen tey te incha allahu rabbi di nga ko xam eh, di nuyu Lamine aussi. Lamine Lutte TV. waaw sama cheikh sama xarit. sonn na ci làmb ji ah. làmb jii nii. sonn na ci torop torop torop torop torop maa ngi koy ziar bu baax maa ngi koy jéem a woo sànq ba léegi sax mënuma ko jot. donc vraiment man ma leen di kontaane di leen wax ne man seen nit laa. et lu waay amul ci man rek ci yow la. ci samay ne moom lu ci waay amul rek ci yéen la. man du santaas kenn. du ma ne da ngay joxe dara nga soog a dugg déedéet na ñëpp ñëw na ñëpp filme na ñëpp wane. waaw Sénégal la ko moom daal. waaw. <laughs> na solo di jéeglu tamit ñun ci yéex dugg gi yéex gi ñu ci yéex a gis dañu nekkoon ci beneen occupation bu ndaw bu ñu xawoon kii rek looloo tax sax nga yéex a gis Babacar ci làmb ji mu feeñ ci nii. Babacar seen site man dama cee abonné man dama cee bokk wallaahi dama cee bokk man dara duma ci raw donc même bu ma la gisul aussi xam naa ne peut-être yittee la rek. mais aussi di wax ne yéen a ngi liggéey liggéey bu mucc ayib di woowaa Sénégal yépp ñu dugg Equivox ñu abone yaa ngi dégg donc maa ngi woo supporters yi ñoom nañu ñëw ci dal ñu xam ne ñun dañu dugg ci bisimilah ñu ngi soog a dugg ci làmb ngalawaay suñu làmb ji na rafet ndax bu ko defee dañuy ñeme yoon bi n'empêche làmb ji pour mu taxaw métti na torop ndax ku tëgg daaw depuis daaw wax dëgg si yàlla métti na te yàlla def na ko nag suba la ah nañu gën a góorlu rek ñu ñëw ci dal ku ñu daan nga xam ne dañ la daan ku daan ñu xam ne yaa daan eh, bu boobaa nag ñu xool leneen ñu xool leneen Babacar kontaan naa <laughs> jaajëf frère merci beaucoup